parce que ni mu amee une politique alimentaire noonu la amee une presse alimentaire. mais presse alimentaire loolu nga wax foofu parce que tamit. duñ la ah. duñ la duñ foog nga leeral ah. parce que ah. bala bala bala ñu ma ciy boole presse alimentaire pour yow. nekkee université le syndicalisme alimentaire da ngay xool li nga xam ne moom nga war a défendre ci étudiants yi mais doo ko def. ça c'est le ministre de l'enseignement de l'époque Diallo qui le disait. non maa mu ñëw rek. doo def parle de revendication alimentaire. doo ko de da ngay dem comme ça coûte ñu gérer la wala leneen wala leneen wala leneen. aujourd'hui la politique aussi am na ñoo xam ne c'est à toi de choisir tu as le bâton la et la carotte on te donne la carotte su tu veux nga jël la carotte ne nem on l'a vu on l'a revu on l'a entendu on l'a entendu la presse aussi c'est la carotte et le bâton si tu veux on te la carotte c'est à la une c'est Macky Sall et son pouvoir à la une c'est bien bienfaits de Macky Sall qui est le meilleur qui est ceci qui est cela qui est une lépp loo xam ne day xarabal li nga xam ne mooy euh, euh, kii euh, opposition surtout l'opposition radicale en l'occurrence le président Ousmane Sonko nga jël teg à la une moo tax cette dualité la presse bi moo ko créé aujourd'hui cette dualité là entre le président Ousmane Sonko et Macky Sall presse bi moo bi moom moo dem ba ñoom dans leur volonté de mettre peut-être leur pensée et de le mettre peut-être ñoom seen li nga xam ne moom la ñu mooy bëgg-bëgg à chaque fois ils mettent à la une le président Ousmane Sonko en face le président Macky Macky Sall et finalement cette dualité là sénégal yi dañ koy adopté pourquoi parce que derrière ils ont cette volonté là de nuire je donne un exemple euh, si la presse te dit que à l'élection présidentielle ñu dem mooy 2019 ñu ne Sonko essaie xaw ma suubu soo euh, avec le tiol oil oh, xaw ma lan lan lan mais ne parle pas de la presse une certaine presse. Une certaine... parce qu'il faut que dans toute chose il y a des gens yoo xam ne ils sont clean di def li ñuy war a def mais il y a d'autres yoo xam ne lu leen neex la def. ah loolu kañ loolu kañ moom nga baal màq mais ah, bu ñëpp yemoon su ñëpp yemoon mais kon yàlla. kon nekk xeeb sa cër ku mm-hmm. ñëpp yemuñ y a une bonne presse qui est là dans la justice. dans la justice il y des magistrats qui sont clean qui incarnent la justice en tant que telle mais par contre il d'autres yoo xam ne ñoom seen justice bopp la ñuy incarner loolu moo fi am. léegi la bonne presse pour la pour l'opposition la bonne presse mooy ki koy waxal li mu bëgg. non non non la bonne presse mooy ki koy waxal li mu bëgg. non non non ah mais finalement la presse la bonne presse c'est quoi on nous jette en pâture parce que waxuñu. non non la bonne presse c'est quoi la bonne presse cette presse qui dit le peuple cette bonne presse là mooy presse bi nga xam ne mooy yeewu nekk Fatick hôpital ba amul scanner scanner ba daa paan Kaffrine scanner ba daa panne Kaolack scanner ba daa panne toutes ces régions qui sont dans la zone centre qui polarise plus de cinq millions six millions d'habitants amuñ scanner dafa panne kon dem leen ngeen defar scanner bi su booba euh, ministère de la santé jóg dem defar scanner bi yoonam nekkul ci ay diw moo def li wala diw moo def leen wala lee wala lee des choses yoo xam ne c'est des futilités et est-ce li ma leen wax ni information ma leen jox ni est-ce que gis ngeen ci presse bi dafa panne lan moo gën a am importance santé doomu aadama wërgu yaramu doomu aadama est-ce que cette presse là mos ngeen a gis ñu leen lay la route qui mène de Mbirkilaan jusqu'à Maabo nit ñaa ngi bëgg a dee boo fa jaaralee Samara da ngay dee te route boobu noonu c'est le projet PCZDA de moom moo ko financé woon te bu tey nii nii route bi dafa am na ñoom parce ñoom presse dañuy yaakaar ni quotidien yi c'est là où l'on attend c'est c'est notre invité c'est là c'est la presse cest c'est ça qu'on attend à la presse le droit à la bonne information. à la bonne information gis nga droit à l'information dañ ci war a yokk à la bonne information. mais nag mais nag li li Birame wax aussi dafa am solo de. Hmm. mënuñu mënuñu bu ñu waxee loo xam ne dafa arrangé état bi ñu ne waaw ñii ñoo baax bu ñu nee dafa arrangé opposition. oui finalement nous on est. finalement ñoom ils sont perdus nous on est entre deux feux. ils sont lu arrangé état. yaa ngi ci jàmm boo waxee lu ko arrangé wul sa voilà. je vous demande sa yoonu prison teew na peut-être. je vous demande opposition aussi opposition aussi boo waxee lu ko arrangé tu es la bonne. l'état c'est quel état. l'état c'est sénégalais. l'opposition c'est quelle opposition. sénégalaise sénégalaise ils ont en commun le Séné. la quête le Sénégal et nous tous nous avons en commun le Sénégal. veillons informer le Sénégal. Veuillons donner au Sénégal la bonne information. Veuillons donner, traité les bonnes informations qui arrangent qui peut développer le, le pays. Mmh. Mais tant qu'on donne une information qui n'ajoute en rien, en rien sur le devenir du Sénégal, amul njëriñ.